القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من غزنا فضلا بليلة القدر معزما لسانها في الدار خدا غدا خيرا من الفجار البرية بدان محمد والآل وسب الكرام ماذا بردع بأبدل المرام mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen nuyu fi ñu leen baaxee fi ñu leen baax a nuyoo di fi nga xamante ne bii mooy barab bi nga xam ne moom la waa raay da def muy seen daara muy fii ci Yoff Océan ci Dakar di nuyu bu baax a baax a baax waa raida yëpp di ci jiital suñu jëwriñ sëriñ Abdul Baaxi Silla waaye tamit di nuyu bu baax a baax a baax jëwriñ ji nga xam ne moo jiite fii ci Ndakaaru di sëriñ Moustapha Jaxate waaye tamit di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ jiital ci liggéey bi ku ci nekk rek am wet gum ci taxawu ku mel ne sëriñ Mouhamadan Sarr ak sëriñ Xaadim Sarr ak sëriñ Mbacke Top sëriñ Bara waaye ak jëmm ji di wax ak yéen di sëriñ Abdoulaye Lo waaye ak sëriñ Salihu Gueye ak jëmm joo xamante ni rek yow yaa ngi ci biir liggéey bi moo xam ñi nga xam ne am na lu leen dénk ñu di ko doxal ni mu waree ak ñi nga xam ne tamit ay membre lañ yu ànd ak ñun liggéey bi da nga xam ne lépp loo xamante ne bi am na ci rek ci fee ci ñoom ci ñoom la la la jóge di ziaraat bu baax a baax a baax Serigne Mountakha Bassirou nag moom la ñu waroon a njëkkee sax waaye di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom guddal fanam lool te wéral ko ñu dajewaat fii ci bis bi nga xamante ne bii nii mooy bisub laylatul xadar laylatul xadar nag buñ ko waxee rek xel yëpp dana dem ci jëmm ju tedd ji cheikhul xadim waaye xel yëpp tamit dana dem ci jëmm ju tedd ji soxna may moonatu moom cheikhul xadim mu doon bis bu mu doon taxawee taxawaay bu yaatoo yaatoo yaatu tey jii nag ñu am ndigalu man koo defee fii ci ndakaaru di ko fi def moo waral tey jii mbokki taalibe bi yëpp daje fi di ko fi màggal muy képp koo xamante ni yaa ngi raayda wala képp koo xamante ne bii nii soppe nga wala koo mën a doon rek moo xam daayira bu mën a doon jóge nañu fu ne ñëw mbokki euh, dëkkandoo yi tamit jóge nañ fu nekk ñëw mbokki da Touba tamit macha allah ñu bari jóge fa ñëw ànd ak ñun liggéey bi. lii nag mooy li nga xamante ne bii kon mooy guddi gi nga xam ne raayda mi ngi koy màggal di ko màggal ngir ndigal li nga xamante ni Cheikhul Khadim digal na ñu di ko def waaye di ko màggalit ngir euh, doom ju sell ji ju tedd ji doxin bi mu ko doon doxalee muy soxna may montu soxna may montu bi nu Cheikhul Khadim kon ñi ngi leen di dalal ci liggéey bi di ko fas yéene ànd ak yéen ngeen topp ko guddi gi lépp loo xamante ni jóge na ci rek bu soobee sëriñ bi danañ ko ànd ak yéen kon ñi ngi siyaaraan ñépp di tuubal ñëpp ci barkeb Cheikhul Khadim te di leen siyaara di jiital ci nuyoo boobu ak ñaan jëmale ko jëmale ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaanal suñu borom jàggal ko fi lool te yokk ak wéram ba fii nga xam ne fa la bëgg a yeggale liggéey sëriñ bi mu yeggale ko fu kawe jotam di ñaanal xalifa généraux yi ne ci réew mi te bokk ak moom waaru islam bi barab bi nga xam ne fi leen ñuy defee guddi bu tedd gi muy guddi laylatul xadar fii ci Yoof ñu ngi ñëpp mboolem koo xam ne yaa ngi dégg rajo bi nga xam ne waa daara Arraida ñu ngi leen di nuyu te di leen màggal te di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo boobu nga xam ne waa Raayda ñoom ñoo koy nuyoo jëwriñu liggéey bi mooy Serigne Abdou Bakhi Sylla ak jëwriñam ji nga xam ne moo ne fii ci Dakar muy Serigne Moustapha Diakhaté ak ñi mu ànd liggéey bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen gërëm. di wax ne jotaay bi jotaay leer la jotaay xam-xam la jotaay jaamu yàlla jotaay sëñ Tuubaa nag ci rekk lay tënku mooy jàng xasida yi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye it waxtaane sëriñ bi waaye waxtaane yi guddi gu tedd gi nga xam ne mooy laylatul xadr xayrum min alfi shahr guddi gu mag ñu war ko waxtaanee loolu nag suñ koy waxtaanee faw ñu am ay boromi xam-xam yoo xam ne ci wàll wi ñooy ñëw man cee indi ay bind yoo xam ne ñëpp danañ ci mën a jëriñ moo tax moo tax ci biir loolu araida sàkku ci Serigne Khadim Diouf mi nga xam ne moom lañuy ñu toogal muy kenn ci ndaw yi nga xam ne dañuy liggéey Serigne Touba ci xam-xam ñiy topp alwafa miin nañ ko bu baax a baax ca Daarul Moxti mu bokk ci commission ba nga xam ne moo yor wàllu xam-xam ak wàllu programme yi waaye fii ci biir Arraayda it mu yoraat ci ponk bu amam solo te mooy lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale ak waxtaane Serigne bi mu fas yéene ñëw. dikk ci solo si nga xam ne moom la guddi gi am waaye it dikk ci sëriñ bi moom guddi gi naka la def bu ko neexee dikk ci sëriñ bi mook shahru nan la ko neexee digg ci sëriñ bi ak yonente bi alayhi salaatu salaam lu ñu def bu ko neexee dikk ci sëriñ bi ak alquranul karim naka la def ndax ku ne xam ne ne sëñ Tuubaa yi ñuy tudd yépp benn bu ne am na ca loo xam ne xaju ci ab jotaay kon nag insha allahu ñu ngi sàkku ci mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci barab bi ñu bàyyee ko xel te déglu ko insha allahu bu soobee yàlla mu dikkeel ñu ci waxtaan bu am solo yi nga xam ne moom lay gaaral di ko ñaanal suñu borom defal ko ci tawfiix bis bu tedd bu màgg bi nga xam ne ci lañu nekk muy guddi laylatul qadr ni ko sëñ Mbàkke waxee léegi sëñ Mbàkke bu suuf sëñ Gédé mu doon guddi goo xam ne ku tudd sëriñ bi faw nga tudd ko waaye bala ñu ñëw ci loolu ni mu ko waxee ñu jiital ak nuyoo akuk cant akuk ñaan jëmale ko ci kilifa gi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba muy sëñ Mouhamadul Mountakha di ñaan ñëpp nañu wax ne yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér ndax guddi gii ñu koy ñaanee guddi nangu ñaan la kon kenn ku ci nekk fa nga toog ñoo ngi lay ñaan na nga wax ne sëñ mun Mountakha yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak yàggam fi am na njariñ lool amal na njariñ réew mi amal na njariñ diine ji te ñaar yi yëpp dafa doon ñaar yu am solo ndax diine ji moom lañu am yaakaar ci moom ëllëg moo xam kenn ku ci nekk nag tariixa ba nga ca bokkee sunu réew mi itam jàmm ji ak jëm kanam ji ku ne xam ne ne am nañ ci yaakaar ci Sëriñ Mamadu xaa bu baax a baax loolu umpul kenn su ko defee nag yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañoo tënk rek sëriñ xëy na daf ma ko jalax rek laa mën a wax waaye mënoon nañu ko séq ndax la ma cay wax amaana moom mën na caa wax lu ëpp solo sax li ma ciy wax waaye guddi gi guddi gu màgg la li tax mu màgg dinañ ci ñëw ki nga xam ne moo tax ñu daje fii ñun itam di ko màggal muy Serigne Touba radiyallahu anhu ku ne xam ne dayo ba mu am digganteem ak boromam ku ne xam na dayo ba mu am digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu yàlla sunu boroom da koo fayee diinam ji ndax umpul kenn ne xam ngeen ne téeméeri at yu nekk yàlla dana yebal aji beesal joo xam ne day ñëw beesal diine ji moom lañuy tuddee mu jaddit mooy koo xam ne day ñëw ngir yeesalaat moom sëñ Tuubaa radiyallahu anhu bi ko yàlla yebalee mu doon ki nga xam ne mooy beesalkat bi nga xam ne moo ñëw ngir beesal diine ji te loolu mu waxal ko boppam loolu la ko jiitu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee di woote lislaam ànd ak saxaaba yi ñuy taxawal diine jàkkaarloo seeni noon di xeex kenn ku ci nekk yor jaasi jàkkaarloo sa moromum doomu aadama ngeen jàkkaarloo mu doon xare bu metti loolu tey jii bis ni tey jii la woon xare badar mu doon xare bi njëkk ci lislaam boo xam ne ci la yàlla teqale diggante dëgg ak fen mu doon xare boo xam ne xare bu metti la woon ci jullit ñi ndax jullit ñi ñett téeméer ak fukk ak ñett dong la woon yéefar yi nga xam ne ñoom lañ doon xeexal doon junni yéefar yi ëpp leen i moyen ëpp leen ay mbooloo waaye jullit ñi doon ñu néew ñoo xam ne seenu ngëm dong la ñu àndal ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tiit ci ni ñu ko mën a waxee bay ñaan yàlla di ko wax ne ko mbooloo mu néew mi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw te gëm la yow yàlla suñu borom bis boo boo leen seetaanee ba ñu gañe leen ba leen diine ji moom dootul taxawati di ñaan yàlla di ko ñaan ba kaalam wadd yàlla suñu borom ne ko danaa la wallu si yebal ñetti téeméer ñetti junni yi malaayika yoo xam ne dañoo ñëw ngir wàllu wàllu si ko moom la sëriñ bi di junju ci al ci miimiya di wax alfun wa alfun wa alfun baadaru jiyefan fi zalika al yawmi mimman sha'nuhu maaduma mu doon bis boo xam ne keroog bi ñu xeexee ñoom ñoom jullit ñi yàlla may leen ndam ñu doon ñetti téeméer am ndam ci kaw yéefar yi bi ñu ñibbisee madinatul munawwara yonent bi sallallahu salaam wa dafa am wax ju gàtt jum leen wax mooy xuddimtum min al jihaadi al asgar ila al jihaadi al akbar jóge nañu ci xare bu ndaw bi ñu ngi jëm nag ci xare bu mag bi ñu ne ko xare bu mag bi mooy lan xanaa kon de dun de duñu ko mën a àttan ndax jàkkaarloo sax noonu mu am doole nga am doole mu am kàttan nga am kàttan mu am xel nga am xel nga jàkkaarloo moom yor jaasi di xeex ak moom loolu bu fekkee mooy xare bu ndaw kon xare bu mag bi xamuñu fuñ jëm mu ne leen xare bu mag bi day mooy xeexak sa bakkan xeexak seytaane xeex àddina xeexak ak euh, beneen bi ci topp bu sa xeex sabakan ak seytaane ak bànneex ak àdduna mooy ñeenti noonu yi mooy xuddimtu min al jihaadil asxar ila al jihaadil akbar saxaaba yi nekk ca loolu xam ngeen ne bakkan lu naqaree daan la rawatina ci jamono yi ñu toll seytaane itam mbër la moo xamante ne saa boo ko daanee dana wëlbatiku songaat la bakkan mën naa wax rek ne ñu bari ñu daanu di ko jiñ seytaane bakkan leen ko teg Sëriñ Tuubaa mi ngi jàngale ci téere boobu ñu wax a Munawwiru Sudur di wax ne bakkan leen rek moo ko mën a tëj moo ko mën a daan mooy xiif bu métti te loolu yaakaar naa ne weer wii bokk na ci yi nga xam ne mën na cee dimbale jullit bi keroog bi ko yàlla bindee moom bakkan da ko ne yow yaay kan mu ne ko man maay man yow yaay yow yàlla ne ko jàpp leen malaaka yi jàpp leen ko ngeen buggal ko ñu jàpp ko duma ko duma ko yàlla ne ko yow yaay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man mu ne malaaka yi leen ko sawara ñu dugal ko lakk ko bañ ko génnee yàlla ne ko yow a kan mu ko yow yaay yow man maay man yàlla ne xiifal leen ko ñu xiifal ko bi ko yàlla ne yow yaay kan mu ne ko yow yaay buur bu tedd bu màgg bi man maay sa jaam bu torox bi man maay sa jaam bu sàggan bi yàlla ne kon moom bakkan xiif dong lees ko mën a tëjee seytaane doon mbër moo xam ne doy na rek misaal ci ne am na ci nit yàlla yi koo xam ne ñu ngi koy wax baraam am koo xam ne birsis dañ koy wax yeggoon nañ ci bu malaaka yi di wax sax ci kaw asamaan si ñu di ko dégg waaye keroog ba ñu fénqoog seytaane yaakaar naa ne fa ñu mujjee ku ne xam na ko dem nañ bay woote di woote ne yàlla amut am na ci koo xam ne bi mu dajeeg moom ci marché bi mu doon nituk yàlla da ko ne kaay ñu bëre waaye ja moom seytaane yëkkati ko ba ci kaw dóor ko ci suuf jël paaka nar koo rendi ne ko ah naa la bàyyi sax ndax yow yàlla xamal na ma ne ma di nga dundaat téeméeri at te bu ma la reyee léegi nii dinaa danaa dinaa la xañ sa téeméeri at yooyu waa ji jug faxasu daal ne laay man nit maa ngi sonn ci jaamu yàlla te dese naa téeméeri at yi ma war a dund naa dem caaxaani waay ndekete boobu la ko mate matul la ko dese ci kaw suuf matul ñaar fukki simili ak juróom fu mu génnee dem mooy ak yàlla mooy yàlla rek yàlla moom bakkanam seytaane su ma seytaane ne su ma ko rayoon shahid lay doon ngir bañ bañal ko mu doon shahid moo tax ma ma yoxamal ko ci noonu loolu murit bi war na cee jàngate ne yenn saa yi da dem a dem ba toll foo xam ne mën nga di sax di jàng xasida di gént ak a gis yoo xam ne mën na laa jay ba nga jàpp ne toll nga fenn fekk seytaane mën laa nax ba fekk yow daanaka tàmbalee ko seytaane kon noonu lay noonu lay noonu waree doomu aadama bi muy jullit bi àdduna noonu bànneex noonu yooyu noonu yooyu saxaaba yi jéem nañ ci lu ne xeex nañ seen bakkan waaye bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jóge yàlla da ko wuññil àdduna mu xool mu jug jamono mu kër këriis ba tax mu bët bënn ay bëtam di jooy yàlla sunu borom ne Seydina Jibril demal nga laajal ma ko lu muy jooy mu ne ko moom day ragal ragaluma dee moo tax may jooy waaye damaa xool àddina li ci des ma gis ne lëndëm na këriis ñii ñëw ci sama ginnaaw xaw ma nu ñuy def ba gindiku yàlla ne ko kaay ma jaay la ci xaas loolu ñu tuddee xaas nga xam ne loo ci ñaan yàlla mu nangu Seydina Muusa ca la ñaanee woon yàlla yàlla alagal ko euh, euh, Firawna Seydina Nuuxin ca la ñaanee woon yàlla yàlla feesalal ko àddina ak ndox noonam yëpp lap no yonent yi kenn ku ci nekk ba nga tollee ci diggante ñaan nga ci yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musu ci ñaan sunu borom dara luy lor ab mindir yàlla sunu borom ne ko ci sa xaas googu laa lay jaayee jëmm joo xam ne bu ñëwee tiitaange gi ngay tiit dana ko régler sëñ Abdou Lahad Mbacke nettali na nee na keroog sunu borom won na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëmmi sëñ ci la yonent bi sallallahu alayhi wa ree ba fanweeri bëñëm ak ñen ñaar ak ñaari feeñ yonent bi sallallahu alayhi ne tuubaa li man balagal mi atarabiata bandal alf texe ñeel na ñi nga xam ne daañu fekkee fukkeelu xarnu bi ak ñeent fukkeelu xarnu bi ak ñeent nag ba mu jotee ci la sëñ Tuubaa ñëw doon ab yeesalka doon mu jaddit war a yeesal diine ji fekk na mu xam li mu war a xam lépp fekk na mu jàng li mu war a jàng lépp ci ron keppaaru waaye juróom wu tedd woowu di sëñ Mamour Anta Sali waaye bi mu fi jógee mu yenu yen bi ci la wax waxam ju rëy jooju amare ni rabbi sunu borom moo ma digal sëñ Touba doonul koo xamante ne keneen day dox digganteem ak déedéet nee na amare ni rabbi sunu borom moo ma digal lan la ko sunu borom digal amare ni rabbi bi an usarriha ma wax ci kaw ne leeral wax ne bi ànd ni malazun ab wéerukaay laa wa mafzaun fa man araada al xayra fi kilta yi daare ni fal yelus bi sëñ Tuubaa nee na yàlla moo ma wax ne ma waxal ca kaw ne ab wéerukaay nga ab rawukaay nga képp ku wéeru ci yow dana mucc àdduna ak alaxira nee na yàlla suñu borom moo ko wax mu wax ko mu woote wooteem bu siiw boobu yaa ahla barri yéen waa jéeri ji yaa ahla bahri yéen waa géej gi onjuli bari bahri saqaay doon koo xam ne dafa ñëw fekk lislaam ji bu doon ab këra ràpp na dara des fi woon ci diine lu ñuy pukkare ñi ko yoroonu suut kenn ku ci nekk bi mu fi ñëw yaa ngi korkoral la nga dese woon ci diine Cheikh Saadu Abi wax na ko Sëñ Tuubaa nee na ko bi ngay ñëw de dangaa ngaa fekk diine doon koo xamante ne ku ko am sax danga koy làq waaye bi nga ñëwee da ngaa mel ni koo xam da nga ko génte génne mu doon ab jant sëñ Tuubaa yeesal diine ji ci biir yeesal googu nag dajaa bokk bis bii nga xam ne ci lañu toog tey jii muy bisu laylatul xadr wooteem boobu ba mu ko wootee ñi mu fu fekkoon ci jamonoom jële nañu ko fi yóbbu ko ci géej gi yoonu géej googu nga xam ne ñun ñii yaakaar sëñ tubaa kenn ku ci nekk ci ñun boo amee ak texe wala nga am yaakaar gu dëgër sa digganteeg sëriñ bi wala buñ la yooree ci bàmmeel nga ya nga xam ne sëñ Tuubaa mii rek moo la fay fekk yaakaar jooju nga am ci sëñ tubaa sëñ Tuubaa mi ko liggéeyee ci biir yoonu géejam gi sëñ Fall dalaa wax naan yoonu géej gi bu amutoon kon dara du ko jar moom la sëñ musaata di wax ne bu dul kon ak dem gi wolof nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraanu loolu muy yoonu géej gi mi ngi amee woon ci biir weer wi ñu toog xam ngeen ne sëñ Touba bi mu tàmbalee di yeesal lislaam gi ci la tàmbalee di sanc ay dëkk ni mu sañcee Daaru Salaam ba ni mu sancee Touba. keroog bi mu sañcee Touba ci weeru koor wa ci fukki fan yu mujj yi dafa dugg wa mu ngi duggee xalwa ci jàkkee daaru xudus bi mu duggee xalwa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko kon yoonu géej gi mën nañu wax ne mi ngi démarré ci biir weeru koor bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo daf ko ne sëñ tubaa da ko ne gaa yi nga àndal muy saxaaba yi ci ñoom laa bëgg a bokk yonent bi ne ko xii loolu day dafay lu jafe ndax ñii nii dañoo tuuroon seen deret ca Badar ba yàlla wax leen ne leen ulaayika azamu darajatan amut ku mënati am am andi nu murit andi nu lislaam génn loolu mm-hmm. ba ku gis mbooloo mi sax danga nga xemme ma ñëw bokk ci sëñ Muntaxa tuddee ko arraida ida mm-hmm. nag li muy firi mm-hmm. mooy koo xam ne kër ga nga bokk wala dëkk ba nga bokk mm-hmm. dañ laa yebal ne la demal nga wutali ñu foo xam ne bu ñu fa demee barab lay doon boo xam ne bu ñu fa demee daañu fa mën a am sécurité daa ñu fa mën a am santé daañu fa mën a yor sunuy sunu sunu sunuy sunu économie mu mën ñoo yor nee na nga dem yow la waa dëkk bi yëpp wóolu ba yónni la loolu nee na nga dem wuti ko bi nga demee ba ñëw ñëpp yow la ñu yaakaar ngir nga andi leen ngir nga andi leen xibaar bu bu leen doy mooy gis naa dëkk boobu fa ngeen moo yónni woon la ngeen moo yónni woon mi ngi nii moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ar raidu laa yakzibu ala xawmi yonent bi saa sallam nee na raay mhm. du fen mukk aw xeetam mhm. kon nag ñun yaakaar naa ne bu sëñ Tuba sëñ sëñ Tuba sëñ Mamadou Muntaxa tuddee ñu raay mhm. mooy fen ñu sunu askan parce que liñ jëlee woon fa barab boobu moom la ñu war moom la ñu exposé nit ñi mooy liggéey yàlla jaamu yàlla liggéeyal sëñ Tuba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëñ xaadim jazaakallaahu xayral jazaa yi ah xaadim xam naa ne ku bëgg a dégg lu baax te bëgg a dégg sëriñ Tuubaa rek te loolu di ko bégal yaakaar naa bég na li nga fi waxtaan ci sëriñ Tuubaa waxtaan mënu koo génn bégal nga ñu Serigne Touba lool yóbbu nga ñu ci ay tolluwaay yoo xam ne sëriñ bi moo ci tolloon diggam ak boromam ñëw nga ci sëriñ bi diggam ak alxuraanul karim ñëw nga ci Serigne bi diggam ak weeru koor ñëw nga ci sëriñ bi ak njàmbaaram ak soobu gi nga xam ne soobu na ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mu sa dellu gannaaw sëñ Xaadim yàlla na la yàlla fay yow day sak fay kenn amu sëñ Tuubaa rekk ko am yàlla na la fayal boppam jóge Tuubaa ba fii agsi dara taxulaa ñëw lu waxtaani sëñ Tuubaa yow day amuñu sak fay te wax ji it bëri na ay addilaat lool néewutoon wax joo xam ne boroom day làmb di sànni rek waaye tudd nga fi mbindum sëriñ bi te mbind mi am nañ ci as lëf suñ ci xam te damay wax ne yii ngeen di dégg ñu koy wax ci sëñ Tuubaa ci ay kéemtaan seen sëriñ bi moo na ko dàq moo na ko dàq fuuf ndax moom daa am foo xam ne ba mu fa yeggee boroomam dafa jaadu nag mu sant puukarewu ak ndamu ak sant nduróor nañ nduróo goo xam ne jege nañ jege goo xam ne yàlla képp moo leen mën a ràññale waaye du nit bëri na nga romb kuy sant nga te ko kuy puukarewu te fekk day sant bëri nga romb ku ne day sant fekk day pukkarew wa amma bi ni'mati rabbika fa xadis yonente bi alayhi salatu wasalaam suñ borom da koo defal yu baree baree baree bari inna fataxna laka fatxan mubina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min danbik wa ma taaqar wa yutima nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka allahu nasran aziza loolu fa la ndimbal yam yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam li weesu ak ci li ñu jëm lépp yàlla topp la dara jéggal na la lépp koo léewtool ma far ak yow nga gañe ko huwa allazi anzala sakinata fi qulubi almuminin li yazdaadu imana yamatuma ci loolu sax waaye ñi nga yi nga àndal dinaa def ci seeni xol ak dal ba seenu ngëm gën a mën a yokk dinaa def ci seen xol ak dal ba seeni ngëm seenu ngëm gën a dëgër wa innaka la ala xuluqin azim yonent bi alayhi salatu wasalaam suñu borom moo wax ak moom ci façon boobu huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini lxaq liyudhirahu ala diini kulli ne Muhammad a ngoog kuy wër diina ju sell ju tedd ku bëgg a tegu ci yoon wu jub topp muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffari ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujjada yonente bi alayhi salatu salaam ak gaa ñi mu àndal waaw ñu ñëwaat ba ci Wadduha suñ borom wax ko ne ko wa wajadaka daalan fa hada wa wajadaka aailan fa agna fa ama alyatima fala taqhar wa ama alsaaila fala tanhar wa ama bi nicmati rabbika fa xabis kon cantal sëriñ bi bi mu ñëwee dara ñuru ko bëggul ci boppam dara lépp daf koo jox yonente bi alayhi salatu wasalaam maqaama yi mu fekk li ñuy bari bari bari abdullahi wa xadimu rasulihi képp la ci soxla ana lan mooy abdullahi wa xadimu rasulihi abdullahi mooy jaamub yàlla xadimu rasulihi mooy kuy liggéeyal yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne daawatu rabbi wa duaa iya yujib kaw abdallahi xaadim alxabib na man ñaan naa man Serigne Touba te sama ñaan sunu borom daf koy nangu lan laa ñaan yàlla mooy ma nekk abdullahi ma nekk ab jaamam bu koy liggéeyal waaye bu ma yam ci jaam gi rek ndax abdullahi ju ànd ak xadima rasul moom cere yu amul laaloo amutum ñeex ñoo yem doo ko mën a jëfandikoo muy tawfeex